Père Sidi ñu ngi lay nuyu ginnaaw bi ñu la nuyoo euh, gis nañ woote bi nga xamante ne wuy si woon ngeen ko euh, mën nga ñu wax lan ngeen kii ci biir. waaw li may def mooy di sant yàlla suñu borom bu baax a baax a baax mais surtout nag di gërëmaat di santaat l' ensemble des promoteurs yi nga xam ne tey ñun ñoo bokk kuréel gi. tey CNG lii nga xam ne initiative bi mu jël tey jii pour di waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy bailleurs yi am na solo trop. parce que kenn mënut a wax làmb ta waxoo ñi nga xam ne aussi nag ñoom ñoo koy tëgg muy promoteur yi à travers lool nag may wax ni vraiment ñi ngi aussi le ministre Matar Ba mais à travers Matar Ba ñuy remercier son excellence monsieur Macky sal parce que tey jii appui bi nga xam ni moom la ñuy ñaan tey jii pour ñu defal ñu ko tey jii bu amee c'est parce que état mooñ ci mën a jàppale parce que ku nekk xam na ni Covid bi metti na donc xaalis yi tas nañu ci mbër yi boobu ba léegi ñu ngi toog. waxuma la dara bu dul dara sax engouement bi nga daan am pour dem seetaani làmb dimanche dafa amoon solo trop léegi amatul donc ku nekk bu dimanche dangay toog da ngay nelaw donc loolu rek bu ubbee rek déjà rek bénéfice la ci ñun waxuma la na ñu tëgg di fay ay nit pour ñu ci jariñu ñu bari dañuy wax naan promoteurs yi nga xamante ne ñoo nekk ci àll bi te yow nga nekk côté région de Thiès euh, gis amuñu considération ci ci làmb loolu lan nga ci mën a wax. man xaw ma ñu nekk ci àll bi ah parce que man nekkuma ci àll bi man Sidi Diakhaté man nekkuma ci promoteur u àll déedéet kon nag ñu nga wax loolu xañ na boo leen boo leen gisee ñoom boo leen laajee ci dëkk ci àll bi dina la ci wax. maanaam ñu nekkul Dakar mais yow xanaa xamoo ni promoteur yi nekk fii. bu laam bu fekkoon tey Dakar dañ koo ëpp nekku nee na ñibbi kër maamam. maa ak ñoom ñooy bokk saxaar gi dem man da may wàcc cees ñoom Gaston gaaj wàcc Louga keneen wàcc feneen ak feneen. Hmm. donc ñoom ñëpp kenn dëkku fi. pour question bi leer. benn promoteur Kolda dafa sànq mm. représenté promoteur Kolda ñu ne ko doo dugg. ah non du noonu. c'est parce que ni ma dégg léegi li nga xam ne moom la ko président bi laaj c'est parce que dama gis ni moom dafa amugul carte donc boo xam ni permettre na ko pour ñoom instance bi. waaw pour reconnaître ko pour xam ni moom promoteur la. boo xam ne 600000 la ko jëndee parce que bi muy démarré. 300000 hmm. lañ ko ko jaayee mais bi ñu koy jënd 600000 la ko jëndee. kooku daaw la woon kon. mais nag kon non daaw lay wara a doon xam na parce que làmb d'habitude bu ñu xasee ba egg ay mois de mars bu ñu arrêté comme par exemple licence yi ay boori décembre bu ñu eggee mars donc foofu prix day gën a dem bu ñu eggee juin aussi dañ dem léeg ba neuf cent mille sax kon nag moom bu waxee loolu c'est parce que xam naa ci cas boobu mais kon nag moom mënul woon a défendre son dossier mooy dafa waroon a génne kartam wane ne ah attention de man promoteur la bu ngeen ma xamul aussi mais daaw dama yéex a dugg ci mbir mi donc ba sama carte sax bi ñu koy jënd dañ ko exonéré ba dañ ko dañ ko dañ ko do surfacturé parce que dama amoon retard carte baa ngi ni wala li wala lii wala may li te diw mi yaa ma ko jaay bu ko waxee ñëpp ngi fi woon donc ki ñi doon joxe licence yi daaw ak yooyu ñu ngi fi kon defe naa ni du war a problème man bi ñuy wax waxi licence dama ni leen attention bu leen di mooy waxati ay promoteur u Dakar ak yooyu bëgg a defee ni Sidi Diakhaté nag dafa nekk Thiès ngeen bëgg maa jox rek les autres régions parce que région yi ci des c'est parce que man la neex ma opté fa mais licence bi nga xam ni moom laa yor muy licence nationale bi donc ma génne ko daal di ne leen ni moom la ñëpp yor te licence nationale bii ñoom yor moom la ñuy tëggee seen làmb yi kon nag moom moo nekk ni ma ni leen donc de toute façon loolu moo waral tey jii ñoom am biñ ko am moom laa am yam ak ñoom ay droit kon ci làmb ji. lépp lu ñuy war a séddale. te koo xam ni tey jii licence nationale nga am ba pare aussi monté woon combat boo xam ni tey jii euh, combat ba mujj la am ndax Covid bi kooku lu ñuy séddale samay naw nawleeg ñun ñëpp rek ñoo ko war a bokk. kon nag ñun du problème ay affaire ay licence su euh, ay ay ay promoteur àll wala promoteur région wala promoteur leneen donc man je suis promoteur. ah man de je pour bu fekkee ci condition yi ñu wax pour état bi man ñoo jàppale. Hmm. ba pare léegi donc man nee naa leen d'ailleurs sax nañ ma jël man ma jëkk a organiser donc huis clos hmm. loolu maa ko wax fii ci biir léegi. ñu ne ma ndax la man leen damay invité donc les euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy promoteurs yi ñu ñëw sama nawle yi donc invité ñi nga xam ne ñooy CNG bi pour wan leen exemple bi nan lay demee ba ñu parce que loo xam ne bu fekkee bu ñu ko dimbalee noonu ñu ñu ko waxee nga jël sa xaalis yow def ci. maanaam liñ la jàppale ci nga ciy def ba pare léeg bu fekkee am nga perpé nga jaayaat encore am dara a ah man damay defee ni kon foofu sax la bénéfice bi lu mu bon bon bon fa lañ ko fa lay fa lay fa lay parce que li ci des la ñu naan def yëpp ay risque la de dem tudde ay nit jaay ay billets est-ce ko combler léeg ko combler da ngay jëliwaat bi ngay liggéey parce que lamb képp ku ci tëgg aussi du lamb nga yaakaar donc da nga nekkaat ci leneen léeg-léeg nga jëli sa beneen budget boo xam ni donc moom nga koy moom ngay fayaate parce que tey day neex suba du neex kon man je suis pour et man aussi je suis prêt tamit pour jëkk dem servir donc d' exemple tëggi làmb ji que ça soit ci sama combat yi ma a def Kaolack wala cees wala ma def ko Mbour. dëkk buñ ci bëgg rek ma invité nag monde bi nga xam ne ñooy gravité autour de la lutte donc ñu ñëw xool si seetaan si amul problème donc foofu même bu amuloon perpé yu man d' sax pour tëgg ko ci comme ci huis clos xam nga luy la ci mooy presse beeg yëpp ku mu neex ñëwal seetaan filmer ba pare léegi jaay ma mais parce que dañ ma subventionné am na li may am ba pare dépensé tu ma sama te xañ na gañe naa ab cinquante mille cent mille man je suis pour. ok waaw précédemment état bi jox na vingt sept millions su ma jiwul promoteur est du du du du du vingt sept millions dafa dafa am subvention boo xam ni ni ñu ko ni ñu ko ni ñu ko président Bira waxee donc pour le moment. je pèse bien mes moo dafa ni pour le moment nañu jàpp ci lii donc en attendant jox nañu ñi nga xam ne maanaam ñoo fi gënoon a jege xaj na man xaj na fa ma doon jóge dafa xaw a sori mais jotaguma maa ngi xaar nag pour jot ndax wax nañ ma aussi dinaa ko jot te du yàgg mais jotaguma de. waaw bien que nag régulariser woon naa combat am naa licence nationale monté woon naa combat fayoon naa donc frais d' et tout mais loolu yëpp muy ministre bu muy président bi nga xam ne mooy Bira Sène ñoom ñëpp xamal na ma ni ma que ni yow yaa ngi dans les bonnes disposition ak li nga xam ni moom moo waral tey nit waroon cee bokk bokk nga ca loola. kon nag maa ngi xaar te di leen di remercier en attendant léegi daal maanaam damay daas rek fanaanal di xaar chèque bi bu ñëwee ma kaay jërë ma jël maa ngi xaar de. jotaguma nag jotaguma jërëjëf jërëjëf